wax na ne ñi nga xam ne dañ nekkoon ay prête-nom maanaam man Moustapha Diop mhm. ma am alal comme xam naa ne alal ji mënu ma ko justifier ma def ko ci turu Salma Ibrahima Fall mhm. wala ci turu baron Bassirou Diomaye Faye wax ne ñi ko def seen tur mooy prête-nom yi nañu ñëw feeñal seen bopp mhm. buñ feeñalee seen bopp duñ leen ci topp yaa ngi dégg wax bi mais bi biñ génnee lan lañ wax dañ ne Bassirou Diomaye Faye nee na ñi nga xam ne ñoo luubal nañ ñëw feeñal seen bopp nañ ñëw fay ndànk rek fay ndànk kenn interprétation bokkul. moo tax euh, David Colomb boobu boo demee ci livre am boobu may wax dafa am benn phrase bu ma ci jàpp daf ne euh, benn waaye il travaille dans la manipulation de l' information les maîtres de la manipulation. Mm-hmm. Euh, le le gars il travaille dans la manipulation de l' information. Mm-hmm. il a conseillé les plus grands du monde. xam nga lan moom daf ne il n'y a pas de fait il n'y a que des interprétations. Mm-hmm. oui il n'y a pas de fait il n'y a que des interprétations. man je bi nga xam ne ki may seetaan di ma déglu nii moom la am ci les faits. bokkul ak sama bos. beneen journaliste dana toog feneen am interprétation sur les mêmes bokkul ak sama interprétation. Mhm. ce qui veut dire quoi que ni. Mhm. ah j'espère parce que man bokkuma Pastef dew ma seen réunion lu ñu wax. Mhm. mais j'espère qu'ils vont prendre conscience que ni ça ne suffit pas. ça ne suffit pas ay nit nekk ci réseaux sociaux yi. di wane euh, je ne sais pas di di partager les rapports euh, di wane ay vidéo yoo xam ne ça te fait rire. Euh, gis ne par exemple waaja ca Tamba xaw ma 15 euh, kilos ceeb la doon lekk loo ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon séminaire <laughs> mm-hmm. yooyu ça fait rire mm-hmm. mais l'affaire est beaucoup plus sérieuse que ça mm-hmm. l'affaire est beaucoup plus sérieuse que ça c'est des milliards et des milliards de l'état du Sénégal la ay nit jël sànk ko ci lu ñu tegul fenn ñooñu dañ koy delloo mbaa ñu topp leen ci yoon donc c'est une affaire sérieuse c'est pas une affaire de réseaux sociaux et loolu dafa soxla nee naa le gouvernement fi ñu toll nii mënuñu ko parce que le gouvernement mënul woote séparation des pouvoirs. mënul woote rupture ba pare des rapports yoo xam dañ ne la war a nekk le gouvernement di ci oh, wax tout mën nañ cee communiquer le moment venu. bis bu ñu mm. commencé def poursuites yi. xam nañ comment faire même le porte du gouvernement mën na cee wax. Mm-hmm. mais dama ne fi mu nekk dafa am une bataille de l'opinion. Mm-hmm. boo xam ne elle strictement politique. Mm-hmm. et bi ñu leen gagné dañoo toogoon ne nemm waxatuñu. Mhm. bañ naan opposition amu fi nangam ak nangam. mais fi mu nekk nii ñu ngi génnee communiqué. ñu ngi leen ñuy dem waaye Moustapha ñoom nga yaakaar mën nañ wax lu Sénégalais dégg. waa APR yi ma ne la Salma di nga bëgguma ñu toogaat fii nga naan Moustapha waxoon na ko. Mhm. bi nekkul ci mën nañoo wax li Sénégalais yi di dégg nekkul ci mën nañoo wax nangam ak nangam. Mhm. bataille d'opinion la. c'est des gens yoo xam ne Waly Diouf wax na ko démb ils ont de l'argent. waaw yor nañ xaalis moom est-ce que dégg nga wax bi. Mhm. ils ont de l'argent. te am nañ bi ñu nekkee ci pouvoir de waxoon naa la ko fii des journaux yoo xam ne bu ñu mhm. daan paraître di génn nga xam ne ñoo nekk derrière. Mhm. te journaux yooyu ba léegi ñu ngi. existé bien sûr. ba léegi ñu ngi exister. am nañ yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. am nañ ay xarit yu baree baree bari dans notre milieu là. Mhm. am nañ ay nit ci ñi ñëpp ñi nga xam ne am nañ accès à la parole publique. maanaam ñi nga xam ne dañuy toog di wax ñu leen. dañuy àddu wala voilà mhm. quand tu es face à opposition comme ça bul toog ne. affaire bi kat c'est entre les mains de la justice bu ci kenn wax nañ toog seetaan. loolu le gouvernement mën na ko. le premier ministre mën na ko le président de la république mën na ko. parce que mën na ne mënu ma nekk président de la république woote séparation des pouvoirs ba pare naan bii maa ci sama kudd bii nangam bee nangam. non nañ bàyyi yoon mu def liggéeyam. man waxewu ma foofu. je n'ai pas de problème avec ça. mais fu may waxee mooy la bataille d'opinion entre acteurs politiques. Mhm, mhm. soo gisee waa APR ñoo xam dañ leen a épingler. ci ci rapport yi ñoom ñuy wax di bind. Mhm. naan nii la demee nee la demee boobu bi ñu nekkee pouvoir ñoom waa PR. Mhm. cour des comptes génne na fi rapport. waaw am benn ministre bu toog fii ne cour de comptes ay waa Pastef la. wala mhm. da ngeen koo fàtte. Eh, fàtte wuñ loolu. OFNAC génne na fi rapport am benn ministre bu toog fii ne OFNAC gi couleuru Pastef la yor. waa Pastef la. naa ne moom ministre la of nag amul benn prérogative pour mun ko woo. ak yeneen ak yeneen léegi soo bàyyee noonu. bu mhm. nga xam ne da nga nekkoon opposition ñu lay jiiñ ne Cour des comptes ci yow mhm. di jiiñ ne say couleur nga jox waa of nag. Mhm. léegi soo demee ba jiite yow mais ñooñu noonu fañ jàppoon la jàpp rek. suñu waxee rek ñu ne ñii kat dañ ñu épinglé parce que waa Pastef la. ñoom ak waa Pastef ñoo mas a ànd. en tout cas communication moom lu am solo communication boo xam ne da nga koo da nga ko war a régler. Mhm. ak yeneen ak yeneen ah y a beaucoup yoo xam ne regarde quand Bassirou Diomaye Faye euh, dem fële nu mu tudd euh, Côte d'Ivoire. Mhm. wax li mu wax jëmale ko ci euh, président Ouattara. mais am na ñu d' ci li wax man d' ci li wax ci Ouattara. Mm-hmm. am na ñeneen ñoo xam ne d' ci. oui nee na Ouattara démocrate. oui am na oui. quand tu connais un peu l'histoire récente de la Côte d'Ivoire boo déggee ñu wax loolu ci Ouattara daf lay daf lay jaaxal oui mais il appartient aux gens du pouvoir su ma nee les gens du pouvoir mooy les gens de Pastef mm-hmm. te ils ont suffisamment de cadres mm-hmm. bien formés pour le faire c'était à eux d'expliquer en tout ngi noonu. mi ngi noonu communication moom lu am solo la. laay euh, ëpp naa négligé bi ñuy nekk. ëpp naa négligé te te dafa nekkoon seen force bi ñu nekkee opposant parce que quand tu es dans c'est facile. Euh, la critique elle facile. Mm. lu ñu wax nga critiquer da ngay bind rek gars partage et tout. Mm. Ousmane Sonko avait le temps de faire ses lives di wax mais léegi Ousmane Sonko mënatul mm, live. Mm-hmm. émission wu télé sax pour mu def ko lu du ma du ko def mais lu raar lay doon. Mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye tey jii pour mu wax lu ñuy organiser la parce que bu waxee c'est le président de la République qui parle. Ousmane Sonko tey euh, am na yu bari yoo xam ne da ko doon def mënatu ko. parce que mm-hmm. c'est le premier ministre Sénégal. mais à côté de ça il faut qu'autre chose. man moo tax su ma ko waxee xam naa dina ma mere mais man jàpp naa ne ku mel ne El Malick sax waru woon dem ci na ko bàyyi mu gérer ah mu gérer la communication du parti. Ah ëpp naa négligé tey quand El Malick a été nommé ministre mm-hmm. Ousseynou lii ñu nommé ko porte-parole de de de la République mm-hmm. mais qui porte la parole de Pastef mm-hmm. normalement c'est Maître Tall mais Maître Tall il porte la parole de Pastef mais l'organisation de la communication de Pastef ci loxo El Malick loxo El Malick et puis ñu bëri Moustapha dañu nekkoon par exemple la dernière fois ñu ngi wax yenn information yi soo ko bëggee tak xam nga ban a dara yenn info yi sax pour nga am ko c' est tout c' est tout c' est tout un problème mais leer laa la wax yooyu nañ nañ ci bàyyi xel bu baax. man man ça m' intéresse. oui parce que wax naa la ko man dama nekk di di gëstu di bind ci réseaux sociaux yeeg euh, li fi xew depuis des années. Mhm. donc fu ma yeewoo ci loolu laay nekk. Mhm. fu may nelawee fu ma yeewoo loolu laay njëkk def. bala may tëdd ci yooyu laay nekk. Mhm. yow mii nee naa la fi keroog wutal ma euh, defal ma ay recherche sur euh, certaines pages affaire yooyu. ça veut dire quoi que ni. man lu ma intéressé lu may xool la. Mhm. et sama seetlu mooy su may xool réseaux sociaux yi l'impression mhm. peut-être je ma me tromper ah j'ai l'impression que ñi nga xam ne ñoo fi jóge mhm. dañu commencé di investir wala boog di ñëwaat ci dans ce dans ce dans ce domaine là te seen ñëw googu mu ciy ñëw li ko waral mooy seetaan ma du ma ne seetaan mooy toog gu waa Pastef toog nekk xëy na ne dans les urgences la ñu nekk ñoom ils sont en train de mënatuñu yëpp mais dama ne il y il faut des gens qui gouvernent. Mhm. Ousmane Sonko c'est ministre nangam ak nangam. Mhm. il faut ñoo ñoo nekk di gouverner loolu y souci. Mhm. mais il faut que ce parti là. li nga xam ne moo taxoon ñu bari eh, xamoon leen il faut ñu ne ca. dama la jox beneen exemple. prix ki démb dama toog fajar gi nii rek ma gis L'Obs le journal L'Observateur tey sax ñëwaat nañ ci. tey ñëwaat nañ ci ñoom L'Observateur. ñu gis ñu ne euh, euh, euh, Ousmane Sonko li mu waxoon ne dañuy fay producteurs yi producteurs en tout cas am nay retard. oui. Hum? Mm -hmm. Mhm. ils départ raté. départ raté vu le ministre de l'agriculture lui-même. oui moom la ñu woo TFM. Mhm. fajar gi mu koy mu koy euh, suba gi mu koy démentir. Mhm. mu koy démentir. après bu ko xoolee dama ne pourtant aka doon yomb ñoom waa waa waa gouvernement bi ñu organiser wu de telle sorte que avant même journal di bind ñu wax leen ne leen fay nañ nangam ak nangam parce que ministre boo ko déggee daf ne. jour sangam fekk nañu fay 14 milliards déjà. su ma juumul loolu la wax. mais bi ñu fayee milliards yooyu. Mhm. mënoon na am une communication boo xam ne sax mën na nekk bañ na bañ a nekk une communication officielle du gouvernement. Mhm. parce que gouvernement mënul ñëw mënul xew def lu xew mu communiquer. Mhm. mais cadre Pastef yi nga xam ne ñoom il travaille dans ce domaine ku mel ne Alpha par exemple. nga xam ne moom mooy ministre euh, euh, secrétaire d' état chargé des coopératives agricoles demee noonu. mais ñu noonu. mais les plateaux de télévision du vendredi. mais buñ ci ñëwoon mën nañu expliquer Sénégal neen clairement Ousmane Sonko li mu waxoon que respecté nañ ko parce que vendredi moo jot. déjà fay nañ 14 milliards. c'est tout. mais soo bàyyee ba l'observateur bind ko. ministre bi moom ci boppam moom it est que war na koo bind te leeru ko tamit. ah mais leeru ko loolu sa wax la de. ah mais mais ministre bi nee na ko information boobu fu ngeen ko jëlee. est-ce que gëstu waxee ñoom bindaat nañ wax ne ñi ngi gën a confirmer lañ waxoon. mais tey jii am na benn journal Moustapha bu bind tey jii bu bind le pari raté maanaam ci wàllum wàññi dund beeg yooyu yooyu aussi dafa am manipulation yaa ngi koy wax léegi opposition bu yor xaalis lañ ñun aussi journaliste yi balaa ñoo bind yooyu est-ce que non xam nga man journaliste la comme comme comme ñu nekk lob sax ñu nekk feneen mhm. quand je travaille sur de l'information dama koy jël vérifier ko vérifier ko ba man ma jàpp ni lii may bind am na mais li may bind c'est pas parole d'évangile du bible du Mm-hmm. je peux me li ma nekk di wax fii on peut se on trompe très souvent d' mm-hmm. moo tax d' ailleurs am na benn jàngalekat journaliste buy wax ne journaliste dañu war journaliste yi dañu war a am humilité ci ni ñuy amee information. ça veut dire que ne yow. man ak yow discuter nañ ci yàggul. Mm. tu peux avoir de l' information ne man ay preuves yu dëgër laa yor. fekk na yoroo tous. dañ laa manipuler. exactement. Mm. donc le journal l' observateur mën nañu def seen enquête gëm ne li ñu yor c' est de la bonne information dañ koy bind. su ministre bi ñëwee wax ne li ngeen wax demulul noonu nii la demee. Mm-hmm. ils prennent en compte li ministre bi wax. mais loolu c'est pas un problème pour man. Mm-hmm. man le problème mooy dama jàpp ne il faut anticiper sur ça. Ah mm-hmm. il faut anticiper sur ça anticiper sur ça mooy li ngay def tu le dis. tey jii le ministère de l'agriculture bi mu Ousmane Sonko annoncé ne dinañ fay producteurs yi ñoom ñoo ñoom la waroon fu ñu toll ci pay mi ñu wax ne fay nañ nangam. dëgg la soo demee ba fay nangam. nga nga yor quelqu'un boo xam ne moom spécialiste la ci loolu muy mm-hmm. Alpha Ba mm-hmm. que je connais nag wax dëgg yàlla mm-hmm. fii la nekkoon di jàngale ci eh, Thiès gi ENSA bu Thiès affaire agriculture xam na ci lu bari moom lañ fal secrétaire d'État taftal ko ci ministre de l'agriculture mais bu fekkee ne peut-être aussi je sais pas xawma lu ko expliquer mais bu fekkee ne ñoom def nañ li nga xam ne moom lañ leen santoon ba toll ci benn étape bi mais li li liy baax mooy ñu fexe ba sénégalais yi ak producteurs yi ak baykat yi seen bopp dégg ne ñoom kat dige woon nañ cent def nañ mhm. cinquante wala lañ dige woon jotoon nañ def saisie. mais d'ici deux jours dinañ eggali li ci des. léegi nag bu fekkee ne da nga bàyyi ba kenn mënul anticiper lépp ah, parce que loolu yàlla rek moo ko mën mais soo bàyyee ba journal bind ko. dangay topp ci ginnaawam di jéem a rattrapé. te en matière de communication. loolu wolof daf koy wax ci lu yomb mooy mën a mën a fa mu yegg du man du man mënu faa yegg. voilà donc man foofu foofu laay waxee. Mhm. te loolu c' est pas le gouvernement qui va devoir gérer ça tous les jours parce que gouvernement mënul chaque jour muy communiquer chaque jour muy anticiper ay mbir. Mhm. mais dans l' organisation d' un parti. Mhm. waa waa APR yi mais seen seen bi ñuy jeexal seen reñ loolu lañ xamoon. bi leen affaire Covid bi dalee mooy rapport Covid mu génnee. mais dañoo daje ñoom waa yi ñoom Abdoulaye Sow ak Moussa Bogar Thiam ak ñeneen ak ñeneen. dañoo daje seenu blël wax ne léegi kat li fi am mooy information yi ñu am ñun nañ ko séddoo suñu biir ku nekk xam avant ñuy dem ci plateau yi. su Macky Sall daan def discours avant Macky Sall di wax ñoom cadre APR yi ñu war a dem ci plateau yi ku nekk jox na la discours ba nga lire ko xam ni bëgg a wax. suñ ko defee bu ñu demee. buñ dañuy joxe loo xam ne daf leen leer. lu solo la communication kenn rek laa ci gis mu ñëw fii wal fajiri ngañ démb Touré laminé ko muy <laughs> Mame Mbaye Niang. Mame Mbaye Niang ñëw préparé wuñ ko mais li mu bëgg wax rek. Mm. mooy il faut. organiser cette communication là oui, communication. non parle pas de la communication du gouvernement parce que loolu c'est autre chose mais du parti au pouvoir du PASTEF qui le parti au pouvoir mu di lu am solo parce que communication moom dafa tënk lépp loo mën a gis. parce toog fii ba naan yëgu ko woon moom beneen affaire la. Mhm, beneen affaire la Moustapha